patriote maa leen nuyu di leen ziar seen frère la Cheikh Anne baal leen ma ak baal naa leen yàlla ñu yàlla boole jéggal gis ngeen korite gii moom am na benn mag bu ne ma moom li mu fekkeegum si àdduna Ousmane ko président jomaay ñoom ñoo am sens tombeek Sénégal di def benn koor kese ñëpp defandoo ko loolu alhamdulilah sant yàlla dafa am lu bees na lu xew mu indi leen ko ay imaam yoo xam ne dañoo ñëw wax dëgg yàlla imam nag dafa war a jàngale diine dafa war a jàngale jub waaye dafa war a jàngale tamit lekk li nga xamante ni yow yaa ko moom waaye bu lekk li nga xam ne ñëpp ko moom ma tegal leen imam bi wax ma indi samay commentaire ñaari wax nag lañ wax yu bokkut ñaari wax yëpp laa leen teg ngeen déglu leen ñaari wax yëpp imam bisimilah nag la imam ak ulema yi nga xam si nag waxtu yi dan daan jot seen suukaru koor ci njiitu réew mi ñoom ñëpp ñëwoon nañ fa nag ngir di xaar lu mel waaye nag seen loxoy kese lañ ñibbee waat tax nag eh, ki leen jiite di imaam Omar Diène eh, di ko fàttali président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñu teewlu ko ko Mamadou si nit ñuy xaar secours la secours bu mag. te ñoom bokkuñu ci bourse familiale bi donc imam yi dañuy compter trop. ci aide boobu d'un montant de cinquante mille francs la. bu ñëwee ci la ñuy. président dafa doon ngeen jënd ci seen muuru koor jënd ci seen añ donc ren malheureusement loolu nekkagut ñu ngi xaar daal pour président o ñu ci wala mu dimbali ñu ci wala mu seet nu muy def tamit pour imaam yi bu ñu ko jotee ñu mën a passé fête bi ndax ku jë ku woor fan weeri fan wala ñaar fukki fan ak juróom-ñeent maanaam daal benn weer yaakaaroon ci nag pour mën a korite jënd sa muuru koor jënd li ci war ak kër gi yëpp def ci loolu nag daf ñu doon dimbali bu tabaski jotee it président daana def loolu it ci imaam yi ci pour tabaski yi ñun sax ñu ngi wax ñaan président Diomaye au lieu de cinquante mille pour tabaski bi mu def ko cent mille ndax xar jaratul cinquante mille te imaam yi amuñu doole mais dañ ciy compter ndax sarax buy ñëw la depuis temps Senghor ba tey saisir nañu président de la république par écrit pour signifier ko situation bi mu xam ko parce que c'est une méconnaissance de la situation loolu moo ko lié. voilà ñu. dégg ngeen li imaam bi wax lii gàcce la gàcce la. Euh, gàcce gu rëy li waral lii nag mooy réew mi yàqu gi mu yàqu gàcce mu weesu lii parce que tey ki leen war a jox xaalis bi ngeen di laaj du président Ousmane Sonko du président Diomaye assemblée nationale moo leen ko war a jox. parce que su boobaa peuple bi yëpp da ngeen dañ ànd waaye jàpp leen ne lépp lu leen Macky Sall mas a jox riibaa ngeen daan lekk. biyee màkk yi képp ku si mas a dem màkk da doon tukki waaye aji woo loolu yàgg naa ko wax. parce que xaalis bi ngeen di laaj le président Diomaye moomu ko amu ko ba koy jël di leen ko jox suñu xaalis lañ ko jox te Diomaye président Diomaye président Ousmane Sonko bis bu ñu leen gisee ñu jël xaalisu réew mi dem di ko jox te nekkul Assemblée nationale moo leen ko jox bu keroogee man maay njëkk doon premier opposant wu le président Ousmane Sonko président Diomaye te xam naa ne ñoom duñ ko def parce que ñooñu xam nañ lan mooy diine yéen a leen mag de yenee a leen yéen seen i imaam de waaye xam ne yéen a leen jàngal luy diine diine bi ngeen leen jàngal boobu la ñuy pratiquer mais diine aada cosaan bi nga xam ne yéen moom ngeen di moom ngeen di moom ngeen bëgg naan ay na fi continuer ay Senghor da ko doon def Abdou Diouf da ko doon def Senghor doon fi def 1960 ba léegi Abdou Diouf doon def Abdoulaye Wade doon def Macky Sall doon def moo ñu rey nag ñii ñun dañu leen indi ñun jox leen li askan bi moom ne leen nag foo leen dugal nag doon loo xam ne askan wi ñoo si ànd yéen tey bi ngeen di def seen discours seen seen seen ndaje moomu li ngeen waroon def mooy ngeen laaj ko assemblée nationale assemblée nationale député yëpp ñoo fa nekk ñu wooteel leen ne dañ leen di jox tabaski ak événement bu jot ñu jox leen cinquante mille ak cent mille comme ngeen ko waxee mais lii ñëpp ko moom te xaalis bi ngeen di laaj dafa am xaalis bu si nekk bu lewul ndax xaalisu caga ji jaay seen bopp di fay impôt mu ngi si su sàngara saa ngi si xaalisu euh, euh, drogue bi mu ngi si su tax yi ñu ngi si te yéen ay imam ngeen imam du lekk lu lewul te ba pare askan wi dañ si war a leen Macky Sall daan jox ngeen daan ko lekk moo waral jàngoro yu bëri ñu bëri si ñoom ami feebar yoo xam ne du wér mukk yàlla na yàlla may seen feebar yooyu yàlla def ko mu tane parce que dafa am loo xam ne ku koy lekk rek yàlla du def si yow wér muy li ñëpp moom nga di ko lekk te ñëpp ànd ñu si kon assemblée nationale ngeen war a waxal mu jox leen xaalis boobu ngeen di laaj mais président Diomaye président Sonko gis nañ leen ni ñu commencé mosuñ leen a dégg ñuy mayee Sonko ñun ñoo ko doon jox ñoo ko doon def ñoo ko financé fal ko moom le président Diomaye kon ñooñu yoruñu lu ñuy joxe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 beneen bi tamit lépp ñi ñu jox ñoom tamit dañoo bëgg a gis ne joxe nañ jox nañ jomaay jox nañ su le président Ousmane Sonko li ñu leen jox ñoom moomuñu ko dañ leen dénk dañ leen jox ay nag jox leen yet jox tengaar nee leen sàmm leen ne lépp lu ngeen siy def na si askan wi ànd léegi nag ñi doon ñi nga doon wax noonu naan dee ku dee da ngaa perte ñu ni a ñoom dañuy bañ a dee di perte mooy ñii ne jiite réew mi parce que dee perte mënta weesu askan la dénk la alalu réew mi nga jël ko dem di ko jox ay imaam yoo xamante ni askan wa ànd ñu si pour ngeen pour loolu ngeen bëgg ngeen di laaj ni li si gën a gaaw mooy ngeen def déclaration bind projet de loi ñu dem assemblée nationale bi nattal leen lu ñu leen di jox seen tabaski seen yooyu noonu ngeen di laaj. dama ne wax dëgg yàlla dama rus ndax bu ñu demee ba ñi ñu doon jàngal doon suñu ay imam doon suñu ay njiit taxaw di laaj lii te ñeneen danañ génn gis nañ nag ñu bëri ñu ngi attaqué toog muy dox bi toog muy dox bi euh, ku si nekkul woon rek doo wax waaye képp ku si nekk di nga wax dañoo sonn. xanaa gisuleen leen hôpital nu mu feebaree dañoo sonn xanaa gisu euh, xale yi nekk si dëkk bi war a liggéey liggéeyul xanaa dañoo sonn xanaa gisu leen dëkk bi nu mu bëree nu mu bëree corrompu bi nekk si dëkk bi dañoo sonn xanaa gisu leen jaay doole bi newoon si dëkk bi dañoo sonn baykat yi sonn nappkat yi sonn wax dëgg fa yàlla léegi nag toog muy dox moom képp ku si nekkoon demal uti liggéey état bi dina def ay euh, euh, euh, kii nu mu ay bërëb yoo xam ne boo waree liggéey dam fa jaar pour déposer say CV yi nga am ñu jël la nga liggéey nga mën di dimbale bu dee sa papa imaam la bu daan bu nekkoon si toog muy dox turu imaam nag moom yomb na waaye imam buñ ko waxee dëgg mooy imam boo xamante ni dalay day dalay tere pour pour bu lekk riba bu lekk lu lewut